waaw mbiram Cheikh Omar Diagne man dama ci yàgg a wax problème bi mooy moom du problème bi ndax fii képp ku fi wax yow xam nga li ngay wax sa bopp moo tax nga di ko wax wala sa intérêt moo tax nga di ko wax walla yàlla moo tax nga di ko wax wala politique moo tax nga di ko wax yow xam nga lu tax kon yow bu fekkee ne mag nga li ngay def bu baaxul saa yoo bëggee soppeeku wala waxtu bu yàlla dogalee ci yow ak soppeeku dinga ko bàyyi kon foofu problème bi lu ndaw la pour man problème bi dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne mu koy déglu di ko gëm ndax iblis bi mu ñëwee ne nit ñi yàlla du buur den ko gëm abila lahabin ba mu daan taxaw ne yonent bi waxul dëgg dañ ko gëm bi nit ñi ñëwee ne sëriñ Touba demul ci géej ga julliwut nit ñi den koo gëm biñ na Baye bi mu génnee àdduna London ñëwut den koo gëm biñ na Maodo gën nit ñépp den koo gëm kon fii kàddu goo yëkkati bu dee dëgg la ak du dëgg am na ku la gëm kooku gëm la nag te lañ nga gëm la du dëgg foofu la danger bi nekk dégg naa sëriñ Mbay Sylla tudde Cheikh Omar Diagne professeur en phénologie maanaam ku mën a fen a fen a fen a fen fen ba am cay raaya yu kawe ndax Cheikh Omar Diagne loolu la wala du loolu xëy na moom am na ci daliil yu tax mu tuddee ko ko ndax mag la boroom xam-xam la li wóor mooy déglu naa ko moom Cheikh Omar Diagne mu tuumaal benn kilifa ci sëti Cheikh Omar Foutiyou Tall mi nga xam ne kenn du moom mu ëlbatiku waat ne dafa juum mu ngi jéggalu senegal bu doon réew mu réglé yow nga nekk activiste ak noo mën a tuddee sa bopp toog wax ci kilifa ak diine kilifa ak tarixa tijaan te la ngay informer nit ñi pour ñu gëm ko du dëgg nga dem ba delluwaat ne baal ma soo doon su doon commentaire football sax yow dootoo commentaire match mais nag malheureusement pour Sénégal dañuy dégloo xol mi duñuy dégloo xel te dañoo rëy Shaddaad dafa laajoon yonentu sallallahu alayhi wa sallam lan mooy rëy ndax mooy takk or yu bari wane sa kër di julli di snap sa bopp loo nekk wane ko yonentu ne déedéet mu ne ko lan mooy rëy mu ne ko rëy mooy desal dëgg ci dëgg ki ànd ak Baay Ñas tey bu ko te dégg lu mooy Baay a baax Baay a gën tey kiy déglu Cheikh Ahmed sa boo ko ne Cheikh Ahmed day fen sa day xuloog yow mais neen xool man dama fen wala dama duul neen càmbara suma wax ji lu ciy dëgg ñu ne li dëgg la lu ci lu dëgg ñu ne du dëgg loolooy réew mu organisé am na ñoo xam ne tey lu Cheikh ma Diagne wax ñu ne du dëgg am na ñoo xam ne lu Cheikh Oumar jaañ wax ñu ne dëgg la yonent mi ñu jàngal diini bi ñuy jàngal lan mooy naafeq bu waxoon ne jëfi naafeq kon ku wor naafeq nga bu waxoon ne jëfi naa fekk kon ku fen naa fekk nga daf ne màndarga kon fenkat mën na wax dëgg Cheikh Oumar Diagne man dama ko fan ci benn boor li tax ma fan ko mooy dafa am xelam saay-saayam saaga dafa am xelam kàccoor dama ne mam yàgg sax di weranteeg suma xaatir bi ndax du waliw bu yàqu waaye awma sañ-sañi wax loolu ndax man xaw ma suma ëllëg moo damay rafet njot waaye wóor na ma ne am na xelam saay-saay ndax bi may jàng saaga man saaga bi gën a bon laa gis Cheikh Omar Diagne saaga ko Maam Alaaji Abdoulaye ak mbooleem njabootam laa gis Cheikh Omar saaga ko njabootam laa gis Maodo Cheikh Omar Diagne ko Seydi Alxaaji Malick si radiyallahu ak mbooleem njabootam lan mooy saaga bi Maam Alaaji mu mag mi Seydi Alaaji Malick Sy Cheikh Ahmadou Bamba dañu topp benn xaddis yonantu bu ne bañal xéeféer comme ni nga bañee dugg ci safara ak jëfi ñooñ kéeféer ñu bañ ko góorgóorlu ci jàng ak nim métti biñ jàngee ñu jëfee ko biñ ko jëfee ñu sellal ko ba pare jël sell ak jëf googu tëbb ko ay nit ba ñoo ñu sell ni ñoo nga ne leen ne ci seen diine ponk ñett juróomi ponk yi ñetteel ba wala ñeenteel ba xéeféer bu gëmut yàlla ki leen doon bund xataal ci diine moom leen daan déglu mu leen di worloo di leen woriloo kon ñoom déglootuñ xaddis déglootuñ alquran jëfeetuñ luñ jàng ba pare nag nga ne waxu waxuma ñi leen doon ñi fi ne tey seen bàyyi laa wax kon ñi fi ne duñ dara ñi leen ñooy dara te ñu doonoon dara xéeféer moo leen contrôlé saaga gënul ko rëy mais nag tey bu fekkoon ne ku mel ni aadam walla Muhammad yi sotti tuuru ndey fële waxi dof yooyu dañuy dóor di wax lu ne mais kii saaga dignité sëriñ si teg seen gëm yàlla en question ndax ku mel ni sëriñ Touba bu demee ba tubaab di ko waruloo wariloo su boobaa kon ndax jaroon na fipp ba dem ci géej ga ndax jaroon na tukki mu métti mi ndax nangoo koor moo gën a métti la doon bañ kon mboolem histoire yi Serigne Touba fen la waaye kon lépp lu ñu doon tuumaal Maodo Malick ne complot la ak tubaab bi dëgg la waaye kon lan moo taxoon Mawlaaj Abdoulaye 1902 ba 1912 mu dem ko mu dem ko Gàmbi Kër sàmba toog ngir jëlal sa doom mu jàng angale français mu ne déedéet moom lim jàngalee jàngal doomam lii la bañ ba gàddaay fukki at ak benn nekkul ci réew mi. ba Maodo Malick soppeem bi xaritam bi dox ca lu rafet lam ca dox ba yàlla dogal lim dogal ba mu ñëwaat ba Baye Niass mun a nekk Sénégalais tey nga ne kooku loolu lépp du dëgg tubaab la daan déglu xaste gënu koo rëy saaga gënu koo rëy wax gënu koo ñaaw mais nag sénégalais intellectuels yi dafa bëri ñu niil da nga dégg ku la naan li mu wax dem leen seet ko ci archive non non non let's use common sense here let us be very honest to ourselves and analyze things accordingly Maam Alaaji Abdoulaye mu ngi dëkkoon Taïba Niassène Maodo Malick balaa Tiwaawoon mu ngi dëkkoon wetu Ndar Serigne Touba ci biir Kajoor Jurbel léegi moom mu ne bu weer bi feeraan feeñaan Niger seriñ Touba moo fi mujjee jóge ci ñett ñi mu tudd 1927 neen xool 1927 télégramme bu jigéen Niger ñaata temps la daan yegg Sénégal ak bu yegsee ci ñoom ñett ñi kan leen daan communique wala den daan ku nekk loolu ñaata fan lay jël bu fekkee ne loolu dafay jël cinq jours pour mu yegsi ndax ñoom dañuy toog cinq jours duñu woor ba bataaxal bi ñëw ñu door a woor wala nu mu demee jas xel rek waxi xel buñ dugg ci benn archive sa mag ñoom saaga na leen xas na leen tuutil na seen doom yi fi nekk wan na leen ne du ngeen dara seen bàyyi yaay dara kon weddi na alwaladu sirru abihi which is not a problem comme neex gëm ko mais tuutil na seen liggéey te Cheikh Omar Diagne li gën a yéeme mooy su waree saaga murit <laughs> day jël benn kilifa mu ni rek tagg ko wax ci moom lu baax ba mu ne di tàcc mu pare nag daggal ko fu ñaaw su ko defee indi conflit diggante murit yi xam nga man soo leen ma seetloo su ma wax su ma internet su ngeen demee wax ji ci internet bi gis ko du ngeen ma fekk may firi xam-xam bi yeggu lu may wax dama koy maîtrise lu ci bari analyse laay def mais Cheikh Oumar Diagne tey li mu xam ci franc yi dem na ba yàq pas-pas yi gëmloo nañu ne ku fi tekki dara ci mim réew waa ana diine ana def lu baax ana wax lu baax koo xam ne rusuta saaga kenn ba pare li gën a yéeme li tax Cheikh Oumar Diagne fenam ci man du actualité maanaam aayul ku fen ci personnalité mun ngaa fen ci lu dafa am tuuti jàppante ak doomi Ahmed Khalifa Niass xam nga gune ñeseen yooyu dañu yeewu <laughs> ci kal diggante Niass ak Cissé waaye Mame Alhaji amul sët bu tuuti euh, biñ ko poussé moom dafa avoué dafa avoué ne moom du professeur professeur Facebook la dañ ko ko tuddee kon fen na ci personnalité du professeur ndax pour nga nekk professeur dafa am procédure yooyu jaar jaaru ci niti Facebook ñoo toog dana ko professeur man mi tuddee neen ma Nasiru Diin défenseur faydu bi te xamaguma sax ndax taalibi bàyyi la nit ku la bëgg ba tuddee la tur taxul nga mérito ko nit ku la bañ ba tuddee la tur yi taxul nga doon ko waaye loo yegg ba yegg ca ba yàlla sedde ko yonentu sedde ko loolu nga doon kon fen na ci professeur du professeur salaamaaleykum noo tudd Ibou te fekk Lamine la tudd kooku lu mu la waxati bu ko gëm moo tax alxuraan rek kay dëgg man nag du moom laay waxal directly honestly man du ma wax ak Cheikh Omar Diagne ndax mag la xelam saay-saayam mi xelam kàccorom mi war na koo may ak leneen ak xel mu sell mi mu yor xam na li muy def am na intérêt bu ko ci dugal moo ko xam am la mais yi ñiy déglu nga xam ne mënu leen a dellu ci alxuraan mënu leen a dellu ci xaddis amu leen loxo bu gudd ci archive yi dama leen di digal bu ngeen di déglu kuy wax yëfi doomi xaram yëfi saay-saay yëfi bon yëfi tuutil ku yàlla màggal ngeen bàyyi ko ca xaj te continuer li ngeen di def moom laa ji Abdoulaye nag ba muy dund na mënee woon kanamam la mënee ginnaawam ndax bi mu ñu wanee ginnaaw daf ñu bàyyee doom yi mët doom yi di ñu dimbale di ñu wotal ci diine bañ mel niñ mel maam Maodo Malick si waxoon naa ko bu liggéeyam dara feeñul moo yar maam Abdou Aziz si dabaax rek doy na ko ndam àllaaxira te maam Abdou kenn la ci ñoñom sëñ Tuubaa nag moom moom doom ju ndeyam sëy la bàyyi na fi nit ñoo xam ne ñoom sëñ bee baax ñu feesal sa poos sëñ bee bon ñu ñuus sa lu bon rek kon mbir mi noonu laa ko gisee ci mbiram Cheikh Omar Diagne Euh, terme yi may wax nag dara du ci njuumte wax bu nekk ak lim laaj ki gërëm ak ki xalab dañuy yem ci man euh, yal nañu yàlla boole jàmmal bi himmati cheikhu tijaani radiallahu anhu yal na yàlla jubal ñu yal na la rafetal suñ njortu ci nit ñi suñuy kàddu